fallu moo cousin borom bugga lool royal di leen wax ni man bay ci Njaay bu ram dal ma leen di jox rendez-vous inshallah le 19 mars ce stade alburi waa lee ngi ñew lugo le 19 mars barke sayidina Mouhamad dina melni ba ngor jaay mbam ma ni nopp yee dem man mom sama tamay commencé na bënd te dara xewul na xamna gaay sen gars yi non lu nar a métti du concert nag ah gars yi soirée lañ def leen ñëw ñu kaf foore Ramdan Wally Balago Seck man Wally Dieng maa ngi ci biir non day métti day yàgg. la xewoon fële ca ci ses xew ca ay bés si Saalum ak la ñu mel loolu lañuy ñuy déplacé yóbbu ko biir Louga. ku parewul man pare naa te boo leen fekkee foofu. waa Ndar waa ngu mëngeewul Kébémer waa Ñomre Kër Momar Sarr lépp lu wër Louga ñu ngi leen di woo bu kenn tardé ñu ritambale ba mu Mbaye Sy Ndiaye man jiitu dina maa ngi Louga. waa Louga nañ ko waaj maa ngi ko waaj